ci ànd ak Mantoulaye Thioub Ndoye dikkati naa quel gàcce Dakar Times na ma ne la li réewum Sénégal def day am nañu ko naqarlu am na it ñu ci jëlee gàcce douane bi ci boppam la ñu di humilier toroxal leen ba ñu ne tott ndax douane nag moo daal di saisir li nga xam ni moo di drogue bi ñoom douane bi nekk ci port autonome bu Ndakaaru fàttaliku leen jamono jéeni am na drogue bu am solo boo xam ni jàppoon nañu ko téye fi nag ay bato téye fi ay doomu réewum Sénégal waaye téye fi ay italien ak allemand Dakar Times ne ñooñee day am nañ liberté provisoire bàyyi nañ ko nag trafiquant yu drogue yooyee bi man la dacca lu nekk ngir jàpp leen Dakar yoonu réewum Sénégal di justice moom la ñu joxoñ baaraam ak tuuma libération trafiquant du drogue nga xam ni nga bàyyi ko bitim réew di ay tubaab yeeti na fitna ci yoon ni muy doxee ci réewum Sénégal procureur de la république nag kon Dakar Times ne dafa war a andi ay gindeeki leeral ci bàyyi naganiku googee nga xam ni may na ko italien yeeg allemand yeeg ñoom seen ca waxtu woowu moom Adama gay di doomu réewum Sénégal te moom jaayul drogue jëfandikoowul drogue jàppewuñ ko it ci drogue ñaan liberté provisoire ni ñooñee ñu daal koy lànkal moom doomu réew mi waxtu woowu ñu nekk bitim réew andi fi ay tonu drogue yu dul jeex ñu jàpp leen ñooñee la ñu bàyyi ñu daal di dellu ay waa Dakar Times day jëfin yi dee tax askan wi yi ci boppam wóolootuñu seen yoonub réew ndax jàpp na ni naxee mbay dong moo fi am Abdoul Mbaye ne ma ne la faiblesse la bu régime bu Macky sàll bii dañoo ragal waa bitim réew ragal force étrangère yi Abdoul mbay ci yéenekaay bi ne man day damaa gis ne Macky Sall bu dee doomu réewum Sénégal day mel ni ko ànd ne tekk ne soow mu way yéeme na critique yéene kaay ne ñëwal daal ñu daal di wax ci li nga xam ne moom moo am te poste de santé bu jaxaay ne woo kenn faju leen te dara waralul ñàkkum paj mi nag lu dul ne ñu poste de santé ba amul gan laas ne waxtu woo Macky Sall day nee na waa yi yéen it fer leen koppar ga mu leen daan jox ngir muy doxal structure yu APR yi président nee na dakk na jeex na dootuñu jot dërëm laas ne ma desal ak man am nay détenu yoo xam ne dañ leen jàppoon de ñoom génn nañ ci mbedd bi di wane seenu naxar Guy Marius Sagna Toussaint jaar nañ ci kaso rëbës ba naqaru nañ bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ni prisonniers yi ñu ngi koy dund ca boobu le kaso xat na metti na coonoo fa am bakkan yu rot nit ñaa ngay dof kaso rëbës daal metti na jaxan na ma la boo bëggee dégg dëgg waaye opposition bi it metti na te jax-jaxi na de critique yéen a kaay ne kan mooy nekk njiital opposition bi guerre bi day tàmbali naa taxaw ci dara xewul ñoom opposition bi nga xam ni ñoo war a nag boole seenu doole xeex Macky Sall mii jamono ji ña ngay xeex kan mooy jisu nekk ci kanam bu askan wi nag taxawul ne kii mooy chef opposition bi ñoom daañu ci seenu biir ngir daal di koy naatable source aané e yi position yi daal wute nañ lool ci diggante Idrissa Seck Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak Issa Sall Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall moom li ñu bëgg lenn la moom moo di ka jiite opposition bi ñu daal di koy saytu fii ak présidentielle 2024 yi bu jàllee pur bu Issa Sall day mën législative 2017 yii moo war a nekk baromètre bi ndax itam ñu fi def am fi ñett ci ay député te ànd ñoog benn coalition benn parti politique defu ko fi yéene kaay bi dama conférence de leader war nañu xool kan mooy chef bu bi nga daal di koy statuer Barthélemy Dias ci Vox Populi ne am nay dealers yoo xam ne ñu ngi ci biir opposition bi ñoom nag boo waxee ñu daal di yëkkati seenu kàddu daal di duñu lii duñu laa waaye xam na ni ñu ci opposition bi waaye ñoom ñoo ñee ñooy renseigné Macky ak di ko wax la mu bëgg dégg boobu day laaste ma xamal nii moom président Macky Sall ma nga woon kër Cheikh Modou Karaak Amath Dansokho ngir jébbalu njaalam Vox Populi ma waa Macky famille yi di étudiants yi toll nañ ci moo di étudiants yi nga xam ne am nañ bac ren ñoom ñëpp ci université publique yi la dem amul privé kon ren Macky famille du am lu mooy ña nekkoon ba nuppi saes ne nguur gi bu bëggee def loolee mën naa nekk waaye chantier yi nga xam ni arrêté woon nañu ko nañ ko yeggali fii ak décembre sudes ne nan ci yokk nag recruter ñetti téeméer ci ay enseignants fii ak octobre ndax jàngalekat yi moom doyul ci université yi ñu wax ci institution Sainte Jeanne d'Arc bi nga ni dafa dàq élèves yi muuri ibaadu laas ne ma ñoom waajuru ndongo yooyee da nañ ab sommation interpellative direction bu école ba wajuru ndongo yi kay ñom la ñuy laajte mom moy ana ministère bi yor ñang meeg njàngale bi ministre de l'éducation nationale waxul yënguwul raful feulfeuliwul bobé askar waa ngi rey seen bop ci bile dogal mom ministre bi mu ne pat rek vox populi ne ma moo tax it ñoom xale yi fay jang te mur ibaadu ñom ñoy wax ndax neñu nak dañ leen di persécuter di leen xot di ak di ak yeneen ndongo yi te dañoo dem sax balal seenu ngëm-ngëm te l'école ba ko def nadia ab ndongo la neena chaque jour dañuy toroxal ci bile l'école di ñu forcer ñu dindi suñu muuraay yi te ay ibaadu lañ lolé nag ñu bëgg ñom école bi ñun duñu ko ko def tey duñu ko def ëllëg ñoom sœur yay jàngale ca école ba dañoo muuru taq it seeni croix kenn du leen wax dara ñu yaataayum ba ca école ba lu tax ñun ñu bëgg ñu dindi suñu voile ndaxte ah ay ibaadu lan ay jullit lan ñoo bañ daliyaane ñun daal buñ teyee suñu tànk ca l'école ba suñu jahannama commencé na dafa mel ni existé wuñu kenn duñu faale dañuy sànni daal ca amphithéâtre ba dem ca ganwaaye ca toilette sax mënuñu ko ndax nag dañuy bëgg a a Macky Sall daal moom bëgg na efficacité ci gouvernement gi tax nag mu woote ab séminaire gouvernemental laas ma dañuy dem ci cité suprime foofee di ab jàngalekat moo fa ëmbal ab xale bu jigéen ndongoom la di élève am 12 ans la élève bi am waaye jàngalekat bi nee na mooma lu ko ca fekkit mu jël moo bëgg te moo ëmbal yendu leen ak jàmm